maître Abdoulaye Tine ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di la jaajëfal ci woote bi. yow avocat nga itam di jiite parti biñ naan parti union sociale et libérale. gis nañ ni front démocratique pour une élection inclusive nee nañ itam dinañ dugal ab recours fële nga xam ne moo di ca chambre administrative bu cour suprême ngir rek mën a dàq décret bu convoqué corps électoral bi ci élection bi nga xam ni jàpp nañ ko ñaar fukki fan ax ñeent ci weeru mars bi ñu dëgmal est-ce que li ni mel ñoom tardé wuñ ñi ci jamono ji nga xam ni itam démarré nañ campagne électorale bi. waaw mbir mi du tardement bi kese mais c'est que est-ce que ndax mën na antu euh, li ma jàpp moom mooy nu yoon dëppoo fii ak nu conseil constitutionnel di doxalee euh, mën nañ jàpp ni euh, kooku amul chance pour mu mën a aboutir parce que maa ngi fàttali ni déjà loi wu parrainage bi bañ ko voté en Euh, bañ ko bëggee indiwaat plutôt ci élection wu député yi man attaqué woon naa en tant que parti union sociale libérale parti bu ma jiite attaqué woon na décret bu Antoine Diome jëloon pour indiwaat dekkalaat parrainage ginnaaw bañ ko bàyyi ci élection locale yi euh, conseil constitutionnel nu mu ñu àddu woon boobu euh, je pense que le juge Coulibaly moo jiite woon conseil constitutionnel moo ram ci ci cour suprême plutôt lu mu ñu àddu woon moom mooy ginnaaw loi wu parrainage bi conseil constitutionnel euh, gàntalu ko maanaam validé na ko euh, dañu jàpp ni ñoom lu conseil constitutionnel jël day tënk bépp xeetu juge ak bépp xeetu autorité et que ñoom cour suprême donc mënuñu wax lu waroo ak lu conseil constitutionnel euh, wax donc ma jàpp ni loolu mooy poñ bu njëkk bi beneen bi aussi moom mooy Euh, mbir moomu daanaka conseil constitutionnel daf ko anticiper woon parce que àdduna ci boo xoolee ci décision bu mu mujjee euh, génnee euh, ci considérant cinq bi maanaam loolu daf ko ci anticiper parce que dafa ne en tout cas que article yooyu maanaam yi nga xam ne day poser délai wu quatre-vingts jours ak yeneen yooyu situation normale lañ ko mën a appliquer et donc compte tenu du fait que dafa am tardement Euh, et dafa am ay gàllankoor yu am ci processus bi mën nañ jàpp ni en tout cas donc article yooyu euh, seen njeexital maanaam nekkatu fi solo si amatu fi donc euh, ma jàpp ni donc loolu de couvrir bépp xeetu irrégularité bi nga xam ne mën nañu ko am ci procédure bi parce que comme ni ñuy wax ci droit nécessité fait loi maanaam ñàkk pexe pexel la voilà. ñoom dañu jàpp ni fu ñu ngoy fu dëgër la ba tax ni quatre-vingts jours yi nga xam ni itam laata ñuy dem ci élection dañu jàpp ni dañoo violer yi nga xam ni itam moo jëm ci code électoral bi ba tax ni ñoom foofu lañ bëgg a sukkandiku. waaw kooku seen droit la comme lu ma la wax euh, yoon moo leen ko may seen sañ-sañ la dañ leen koy nangut mais li ma jàpp tax xam ko moom mooy kooku conseil constitutionnel àdduna ci ba pare parce que situation bi euh, laata moo posé wu man ci comité d'experts bi ma bokkoon ci. Euh, front bi nga xam ne moom la opposition bi tegoon fippu ñu dañ ci mos a waxtaan ba taxoon na laaj yi nga xam ne samp nañ ko ci kanamu constitu conseil constitutionnel candidat yi wax ko mu leeral règle suppléance si leeralaale loolu donc anticiper woon nañ nekk procédure bi bu ñëwoon ba nar a door boo moytu ci candidat yi nee nañu dem élection boo moytu di nga ci gis sax ay nit yi nga xam ne mën nañu dëpp ne àndatuñu fi parce que respecté wuñu délai yi donc ma jàpp ne problème bi daal c'est déjà réglé mais maître yow gis nga ni politique yi ba ci sax ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, askan wi dafa mel ni aboutissement processus électoral bi ñoom dafa mel ni euh, sawaruñ ci euh, lu bari lan mooy problème bi parce que dañu amul yaakaar mbir mi dina yegg ba ci njombaxtal bi. non du loolu Macky ci boppam moo saboté processus électoral bi maanaam nit ñi waajoon nañ ba pare ba bëgg a dem ba fukki waxtu avant ndorteelu. Euh, campagne bi mu gàntal ko euh, léegi jékki-jékki daanaka effectivement bu jëlaatee date euh, ñëpp tam dañ ci am xel ñaar maanaam dañuy jàpp ni gouvernement bu fi nekk daa nekk gouvernement bi nga xam ne dafa bëri pexe et que dara wóoru leen ne bu ñu jëlaatee ay moyens mobiliser ko comme nu ñu ko mobiliser ci parrainage bi ba am lu ñuy am du ñu toog à quelques heures du scrutin ñu jëlaat beneen décision delloo buum ci mboy mboy bi loolu dañ koy mën a comprendre mais man du ma gëm en tout cas tey Macky Sall euh, amatul benn intérêt euh, en tout cas ñuy dellu ginnaaw élection di bañ a euh, donc le 24 mars 2024 parce que tout simplement conseil constitutionnel moom lu mu wax dafa leer te dafa am benn rôle régulation et que tey jël na ay responsabilité ne lu mën ki am dañu war a fal njiitum réew wala avant le 2 avril wala buñ ko falagul processus bi dafa war a commencer bu processus bi commencer loolu mooy permettre Macky Sall mën a toog ba ki nga xam ne moo ko war a wutu mën a e, ñëw e, jël lengay buñ ko defut danañu am bit du pouvoir et que Macky Sall xam na ne e, tey moom départam c'est acté et que lu mu mën a teg ci ay pexe tam bu ñu dàqalee. mais scénario euh, yi dessiné wu bëri na de maître. waaw scénario yi bëri na mais moo tax euh, scénario yooyu yëpp boo ci jël mën na yóbbu réew mi ci guuta euh, moo tax pour fàggul ñu loolu conseil constitutionnel ne lii ngeen war a doxale euh, pour assurer continuité wu état ak stabilité wu institution yi ma jàpp ni nag ñun ñëpp dañ ci war a tënku au nom de l'intérêt supérieur du pays ma mii di wax ak yow mosuma am di ci doxalinu conseil constitutionnel mosuma ànd ci parrainage mais entre suma intérêt entre intérêt wu parti bi ma jiital ak intérêt wu réew mi dama jàpp ni bi en un certain moment euh, voilà bu ñu tollee ci diggante en toute responsabilité dañu war a xool lan moo gën ci réew mi ñu toxal loolu ndaam nekkul li nga xam ne moo arrangé ñëpp ci li gën ci réew mi da nga jàpp ni conseil constitutionnel dañ ko war a tas wala dañ ko war a bàyyi mu continuer li nga xam ni itam moom moo jëm ci processus bi ñenn ñi sax euh, jàpp nañ ni loolu naka la mën a nekkee sax xam-xam màcc na ci wàllum yoon wax ñu. waaw fu ñu nekk nii président amul possibilité tas conseil constitutionnel parce que euh, président euh, décision bu gën a fort bu mu mën a jël moom mooy décret. Euh, conseil constitutionnel loi organique moo ko créé donc lu loi organique créé loi organique moo ko mën a tas wante lu mën ta lu mën a am moom mooy peut-être euh, bu ñu jógee ci élection yi ci kanam war dañu jéem a xool daf jàngat taxaw seetlu xool yi nga xam ne en tout cas moo doxut ak rëq-rëq ci am ñu fexe xool parce ce que ndax dañuy téye conseil constitutionnel bi wala dañuy dem ci cour constitutionnelle mais loolu waxtaan bu war a ñëw la dans le cadre c'est débat waaw war na ñëw loolu lu war a am la mais tey fu ñu toll nii mënuñu nekk ci biir procédure ñu naan ñu euh, dañuy tas conseil constitutionnel war ce que déjà diir bi du ko maye parce que processus législatif bi ñu ko commencé woon mënta àddu ba ñu promulguer loi bi fii ak le 24. mais aussi mosuma gis match bu ñu commencé jouer ñu jékki-jékki ñu ne dañuy dàq arbitre wala dañ koy wàccee donc dañuy bàyyi ba match bi jeex même bu amee ay rëq-rëq dinañ ko ci relever. Euh, mais man ci ci gën a yéeme moom ci man moom mooy laaj buy sampu mooy Macky Sall man dama ko comprendre parce que. moo fi ah, lu tax comprendre loo ko. waaw daf dafi taxaw ne que conseil constitutionnel daa am ay maanaam accusation ay mbirum guerre yi nga xam ne day ko jël teg ko ci ay ndondu juge mu ne loolu moom moo tax que loolu dina ko yóbbu mu arrêté processus électoral bi. Euh, léegi nag Macky Sall moom même Macky Sall nii moom moo delluwaat ci conseil constitutionnel di ko laaj ndax mën na continuer toog après le 2 avril sur le fondement de l'article donc kooku nag man damay wax ni waaw mais conseil constitutionnel crédible la wala crédible wala ñun ñoo comprendre moo tax ma ne ko man ñun en tout cas comprendre ko mais lu ci mën mënti am tas moom xaju fii te mënta nekk. même bu fekkee ni mën na am. mën na am et que loolu man en tout cas ci suma programme présidentiel ci laa boole woon et jàpp nañ ne aussi ci war a ñëw wuutu Macky Sall loolu foog ñu dugal ko ci ci en tout cas refondation yi ci dogal yi njëkk yi nga xam ne war nañ ko jël parce que boo xoolee problème yi ñu am fii yëpp depuis 2012 ci conseil constitutionnel lay juddoo loolu dafa jot nag ñu xool ban xeetu conseil constitutionnel la ñu bëgg a am est-ce que conseil constitutionnel lay doon wala cour lay doon xool seen indépendance seen garantie d'impartialité ba en tout cas mën a fàggul Sénégal ay coow dans le futur. mais déjà maître yow da nga jiite parti am coalition bi nga xam ni àndoon ngeen ngeen bëggoon a dem ci élection yi li mel antuwul tey ci jamono ji ku nekk ngi wër candidat ki nga war a mën ta àndal ki nga war a mën a àndal ci élection yi mais déggaguñu parti union sociale et libérale kan la nar àndal. waaw ñun moom wóoruñu kenn par contre am nga xam ne jóge nañu voilà ñëw nañ suñu wet to plutôt euh, en tout cas sacku seen euh, xementeef ñu ànd ak ñoom ci élection yi muy ay coalition yi nga xam ne ñoo fi gën a mag muy ay candidats yi nga xam ne aussi ay indépendant lañ mais ba fi may wax ak yéen parti bi statuégul mais ci fan yi di ñëw ci voilà dinañu statuer parce que procédure bi c'est en cours waxtaan ak suñuy cadre waxtaan ak suñuy responsable yi nekk sur le plan national ak ci bi ñu muy ab jot nañu aussi ay programme u candidat euh, jox nañ ko suñuy expert ñu ngi koy jàngat di xool en tout cas kan moo ci gën a am ay affinité par rapport ak li nga xam ne moo ñu taxoon a jóg ak li nga xam ne moom lañ doon wootee et que buñ ci tolloo rek dinañ ko fësal dinañ ko wax ba Sénégal yëpp xam ne aussi fii la ñu féetee et puis dinañ expliquer aussi lu tax ñu ànd ak ñoom et pas ak ñeneen. xam nañ ni itam kàngam nga ci F24 bokk nga ci itam ñi nga xam ne dañuy doxal coalition bi ni mel wala sax plateforme bi mais dafa mel ni sa diggante ak pouvoir bi moom loolu moom dàq nañ ko. waaw kooku moom ñun moom cohérence la ñu mos di doxee ci langue politique bi. moom mooy suñu sensu engagement lu ñu taxoon a tàbbi politique moom mooy dañuy jàpp ni Sénégal tey yeyoo na leneen li nga xam ne moom la ñu fiy gis yeyoo na beneen xeetu dirigeant tey comme Macky Sall ak i ñoñam wane nañ pendant douze ans lu ñu mën lu ñu mënut lu ñu tënee léegi dama jàpp ni nag ñun dafa jot ñu bind benn page bu bees ci histoire Sénégal et que loolu tey day jaar ci yeesal ñi nga xam ne en tout cas ñoo gànk nguur gi donc moom mooy fokk ñu am coppite ci boppu état bi te ñu am coppite ci boppu institution yi et tey Sénégal foofu la toll parce que Sénégal moom tey dañu toll ki nga xam ne dañu soxla lu bees ay nit yu bees yu am jaar-jaar bu bees am gis-gis bu bees bi nga xam ne moo méngoo ak mu jamono ak mu nu àdduna di dox Mouhamadou euh, Matar euh, moom mooy Cissé moom mooy euh, ministre bu ñu dénk wàllum kaaraange biir réew mi war a organiser itam élection bi sa xel dal na ci moom waaw euh, kooku man li ma jàpp ni du moment am fu mu féete rek amatul garab yi d'impartialité benn deuxièmement moom mooy déjà ci délai bu ñëw dafa gàtt maanaam daanaka ministre de l'intérieur bi nga xam ne bu day soog a toog jàpp ma ni ci euh, ñaari semaine mën na jàngat dossier yi xam tolluwaay bi Euh, bu nekkoon kenn ki nga xam ne sax mu ngi c'était un homme du sérail en tout cas mu ngi woon processus beeg yooyu ba nañ jàpp ni mu adapté du du difficile mais mu ngi woon ci yeneen sphère dama jàpp ni kooku tey euh, du xarañteefam euh, du aussi parcours am moo tax mu dalal xelu Sénégalais yi ne kii mën tëgg élection yi mais aussi la fait que bu féete fenn Macky Sall bu bëggoon mbir mi jaar yoon Euh, en tout cas du am benn sikki sàkka day jël benn ministre de l' intérieur bi nga xam ne féetewul fenn comme niñ ko defee woon ak général Niang voilà euh, ci bañ ci tollee wala donc général Cissé yooyu bi nga xam ne en tout cas du féete fenn euh, amoon na fi amoon na aussi possibilité mu jël benn nit ci société civile bi kenn ki nga xam ne dañuy maître Tine jeexalee ko ci laaj bu mujj bi sa naataango maître Sidiki Kaba mooy ilimaanu jëwriñ ji ki nga xam loolu yàgg ngeen jëflante alors tey lan mooy sa xalaat ci gouvernement bu bees bi nga xam ne tey daal dina koy teg. waaw en tout cas lu ma ko mën a moom mooy bonne chance ci responsabilité parce que comme ni nga ko waxee nit la ki nga xam ne baag moom ba ñu xamee dafa yàgg boobu maa ngi nekk ndongo daara mu nekk ONDH ci ñu ñu njëkk a àndal fii Sénégal sax di défendre ak ak yelleefu doomu adama ci la bokk ñu continuer ba ñu pare suñu parcours nekk avocat nekk dans l'international euh, di défendre ay cause euh, voilà à Paris ou feneen ci àdduna bi euh, ma jàpp ni tey bu ñëwee itam Macky Sall def ko premier ministre Euh, peut-être euh, mënoon na am lu mu wone ak wala lu indi Sénégal mais diir dafa gàtt tellement que du am jotu mettre en place benn coppite wala benn xeetu poli politique publique wala benn yeesal bi nga xam ne mën na ko indi euh, par contre ñu voilà damay jàpp rek gouvernement intérimaire la parce que day exécuter les affaires courantes pour lu ñu yegg le 2 avril mais lu ci mënti nekk maa ngi jort ni en tout cas lu mu doon xeex Euh, à euh, la défense des droits de l'homme muy ñu respecté ponk ak charte démocratie yi dina fexe ba jëmmal ko ci scrutin yi nga xam ne ci lañu ñu jëm. Maître Abdoulaye Tine ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax di fàttali ni avocat nga nekk président euh, parti union sociale libérale ñu ngi lay sant di la gërëm ci ni nga nangoo tontu suñuy laaj. waaw baa lay jaajëfal ci boobu jokkoo bi voilà di leen jaw dig beneen yoon.